ci biir nag weer wi nu nekk nga xam ne mooy muharram mhm. xam ci biiram la ashura nekk ti ñu tudde ko tam xarit sunu mbokk ma ndeysaan sëriñ ma gàmm Njaay ñoo ngi koy nuyu sax man léegi dama ko yabatul ndax mu xaddam la ci tarixa bi <laughs> dama naa ma naa no no bu xëpp ko ko rek mhm. waaye léegi moom daa yokk beneen grade gàmmu Njaay waaye buñ tuddee muharram rek xelam nga ci cere ya mhm. ah, yal nañu ko fekkee ak jàmm. amiin te weesu ko. amiin incha allah. yal nañu ko fekkee ak jàmm. te weesu ko. amiin incha te lépp luñ ci jaamu yàlla. Mhm. yal na ko yàlla accepté nangu ko. amiin maam Roqe suñu borom ku baax la ku mën a may occasion la. Mhm. bu ñu nee nag muharram ñëw na ñu ne al ashura fursatun taarixiya waaw bi ifraajul kurubi wakas fi durar mhm. dafa nekkoon weer woo xam ni occasion bu yàlla maye la buñ ci rek mu am ñum mu repêché baal leen seen i bàkkaar mhm. faj seen i aajo wuññi seen njàqare mhm. xam naa ci kanam dana limal ñu bëri bëri ñoo xam ne ci même jour bi ci Ashura la yàlla dindi seen njàqare faj seen feebar yéege kon nag ku si ci weer woowu war a war mhm. nag amuñu ko lu sunu boroom waaw et ci itam di fay ñoo xam ni yool boo xam ni kenn xamu nu mu toll mhm. muy nag weer woo xam ni weeru jaamu yàlla la waaye weeru ñaan la ñaan xam nga ñaan ñaan jaamu yàlla la mhm. am roqee ki tàllal ñaar lu di ñaan kooku nangu na nangu na ne am na borom. Mhm. bu ko bind. nangu na ne am na borom boo xam ne du tàggoo moom guddeeg bëccëg. Mhm. ndax inna rabbaka mhm. labil labil mirsaad <laughs> yàlla ne doomu aadama maa ko sikki mu rek waaw sikki mu lépp ma di ko contrôler léeg-léeg ma bég ci moom lool léeg-léeg ma jéppi ko maam roqee ku mu wóor sa borom moo la sëpp te moo la bind doo tiitaru doo wane wu. Mhm. doo fëgg sa dënn xam nga looy def. Mhm. sant rek moo tax mu ni weer la woo xam ne kii ci ñaan nangu na ne moo am na boroom nangu na ne moo manqué nangu na ne tam ki ki muy ñaan du jeexal mukk ki ne adooni ah, sajib lakum mhm. <laughs> man yàlla ñaan leen ma ma may déet ndax du ma jeexal mukk waaye ma dégg nag sang bu tedd bi mhm. Cheikh Mouhamadul Moustapha al Maktoum mhm. mu ni yonent bi nee na ñaan soo bëggee mu gaaw a nangu da nga koy yaatal mhm. koy yéene boo nekkee Sénégal di ñaan aw yiw boole ko ñëpp boole ko ñëpp xanaa xamoon ni fii noon bariwu fi am doxee. Mhm. suñu réew mi ay noon noon bariwu fi. Mhm. xam nga li fi wujje mhm. wujje. wujje moom daa metti moom. <laughs> sunu baay ba ndeysaan baay Mor Gaye ca ngay baay Mor dafa ma doon nettali ñu ma bi Serigne Sia jëndee otoom ba dafa am benn Serigne bu doon wujje ak moom. daal di jaay ay fasam jaay yenn kiyam daal jënd aw ab oto ah. daal di wut chauffeur teg ci mm-hmm. bu amee ñaari fan rek chauffeur bi ko ah bi ndox ma kat jeex na ndox mooy mooy carburant bi waaw daal di fene woon du am ndox ne mu daal xund daal di ne waay ay si jug leen dem leen bojj nga bojj mm-hmm. ñu bojj sàq mi mm-hmm. dugub ji jaay ko jënd ci jënd ci gasoil <laughs> xam nga <laughs> bu ñu ko nee jox jeex na mu ne ah dugal mbojj. ñu dem ko jënd ci ga jënd ci essence <laughs> waaye xam la ci mujj mooy toxoñu rek. bala baaduhum mhm. ala baadin mhm. yetalaawamoon mhm. kon buñ tuddee baatu ñaan rek da ko yéene ñëpp. dëgg la ku am nga am. ku amul. yow nga am. Eh, danaa ñëw nag. ci jagle-jagle yi nga xam ni eh, bis bi am na ko. ñu war ko waajal maam roqee mhm. mbir mu nekk noo ko waajalee rek noonu nga koy réussir mhm. noo ko waajale mhm. buñ nee taasoo mi ngi ñëw muy bisu juróom-ñeenteel bi asoora mi ngi ñëw bisu fukkeel bi nan ko waajal ca njëlbeen bi xam nga lu tax danoo dem ba jamono nax nu waaye itam ñi nga xam ni ñoon ñoon doon ñi nga xam ñoo juróon réew mi suñu loxo ñu tëdd leen ñu ni colonise woon nax nu bëgg dem ci dimanche mm-hmm. ji dimanche ji nu weesu mm-hmm. moo doon sunu premier jour mm-hmm. ci at mi muy jour de l'an mais ñu bari yëgluñ ko seen yaram ndax xamuñu ko dëgg la décembre lay te ku geesu ni tey benn fan ci muharram wala nga xam ne sa dund at wàññi wàññi ko na ci. est-ce que. <laughs> léegi nit ñi am naa nangam at. Mhm. ñu yaa ah, déedéet danaa ñàkk naa nangami at. Mhm. loo am da nga waaw loo de loo am da koy denc mhm. waaye léegi dafa dem. dëgg la waaw. borom oto bi euh, defoon lu mu gën a daw aiguille bi gën a wàcc aiguille bi gën a wàcc. doo wala ñu ko ñu ko gasoil bi waaye nu itam ku ci toog ren ba déwén. waa nga xam ni sa dund at wàññi ko na ci kon nag waroon ngaa yokk ci wàllu jikko waroon ngaa yokk ci wàllu leer mm-hmm. waroon ngaa yokk ci wàllu mbaax waroon ngaa yokk ci wàllu ouverture xajoo ñëpp mm. maam lo dëgg